حمدا لمنزل الدنا وداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا وداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث ما استثمرت يبر بلا بت وفاز بالغرد محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأصفام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاعي مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني مختدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان العظيم yàllaaw yaa rahmaanu yaa rahiimu yaa barru yaa kariimu yaa aziimu ixfir zunuubanaa taqabbal minnaa waxmi himaanaa wa tajaawaz annaa wa anzilan yaa rabbanaa xayra nicam makaana maa naxaafu min sharri niqam wa ablanaa al aadaaba wal madaayaa وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداي ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الدر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bu ngeen gisee jataay bi ñu ngi leen di nuyoo fi ñu leen baaxoo nuyoo naka jekk ci wanagu soxna Bali mu Sëriñ Muntaxam Chamdul Bachir ah di jébbale liggéey bi nga xamante ni daayira Nuuru Daarayni bi nekk ci waañam ca jëfe ndigali ndigal yi di bàyyi tere yi kemtalaay kattan te Yuusu Yadd jiite leen ñoo jë dajale ñoo ñooy jébbale seenub liggéey at mu jot leen ko baaxoo defee ci wanagu soxna baali tey nag gis ngeen yéen a gisandoo seen bopp liggéey bi ni nu ko baaxoo defee naka jëkk at mu jot balay kilifa yi di teew dañuy njëkkanteeg yéen xool ñi nga xamante ni si ñoom ñoo ngënk liggéey bi kenn ku ci ñu laaj leen eh, nasu nasu gi nasu ak liggéey bi àndandoo gi àndandoo fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci wan ko soxna Bali kon du ma man lu dul njëkkante ak waxtu wi woo ci kenn ci jëwriñ yi di sunu porte parole di eh, Serigne. Chérif Ndiaye moom laay jox kaddu gi ñu laaj ko liggéey bi nu nu sosoo ak nu mu nasoo ban agsi fii ñu agsi Serigne Chérif euh, liggéey bu rëy bii ñu liggéey Daaru Nuuru Daari ni ca nu ànd ko ak bokki taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoo mas a jaar ci loxoy Soxna Bali muy jigéen ñi ak góor ñi ca mënisu leen a lib ab lim bu takku la ak yi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi ak ñi ne ci mbitim réew ak ñi néewut ci biir dëkk bi ñu liggéey liggéey bu rëy bi war koo jëbbalee nu ngeen nase liggéey bu rëy bi ak rafetaay beeg tar bi Serigne Chérif. dañuy sant yàlla bu baax ci liggéey bi nga xam ne moom lañu ñu baaxoo di def chaque waxtu ci année ñu fas yéene koo ziyaare fas yéene koo jébbal soxna Bally Mbacké taxa fii ci kër Cheikh Mamadou Bassir euh, mu mel ne nag liggéey bi ab daayira la boo xam ne dañu ko sos yàgg na nag bu ma juumut ñu ngi ci juróom-benneel bi atam euh, jëwriñ ji nag sëriñ Youssou Yade la tudd nekk ci kër gi feggoo ci ak sëriñ Mountakha Ndiaye mi nga xam ne mooy vice président am ànd ceeg sëriñ Abdou Fass trésorier bi ba ci sëriñ Xarim Dieng membre yëpp rek ñu baaxoo di ko defee lépp luy bagage wala matériel lu jëm ci màggalug sëriñ Souhaïbou wala màggalug Poroxaan ba ci njaareem ci koor gi loolu lañu ñu soxna si sase féetale ñu ko ñun nag suñu liggéey foofu rek la jëm moo waral bagage yi nga gis tey euh, mooy suñu liggéey chaque année ci weeru koor ñetti fan ci la ñuy daje fii teew waa daayira Nuuru Daarayni ngir joxe seen liggéey soxna Bally Mountakha mu ñaanal leen ñu yokk ba yëg ko te yàgg koo def te yàgg ko fee fekk lii daal mooy liggéey bi nga xam ne moom lañ baaxoo def chaque année mu ngi nii bagage yaa ngi nii tarmos yi moo nekk nii nga gis sa ginnaaw mu mel ne lii daal moom la ñu soxna si sase ngir ñu baaxoo di ko def chaque ane di ko andi. Euh, sëñ Chérif beneen laaj bi mooy dafa maanaam liggéey bi mooy euh, tarmos yi. ak euh, matériel bi lu ci ne at mu jot da koy fixé wala at mu jot day yokk wala nu nu mu tëddee noonu. waaw loolu itam boo gisee chaque année ñuy jébbale bagage yu mel nii ndax ku xam soxna Bally taxa xam ko ci bernde euh, xam ko ci teral gan ba moo waral moom bis yooyu ma la limal nga xam ne poroxaan ak njaareem weeru koor yi ba ci màggalu saison bu maanaam munuñu ko utal bagage yu doy moom moo waral chaque année dañuy jéem a ut bagage yu takk yoo xam ne bu demee Porokhane dañ ko fay bàyyi ba yëkkati bi ak indiwaat bi ak Touba dara du ci toj ndax dafa mel ne dafa bari ay kaas bari ay tarmus bari ay kii tey yeb bi ak dikkaat bi day day day day day day mujj di saaw wala muy toj ndax moom gan du ko bett fu ne la ko gan di fekk boo moo waral fu bu ñu jëndee bagage bàyyi njaareem boo ñu jëndaat bagage bàyyi Touba bagage yi nga gis nag Touba lay des ndax daaw bi ñu jëndoon daaw euh, ma nga poroxaan ñu ba fa nga xam ne tey bu màggal jotoon dañuy dem ak suñu jëmm fekk fa bagage bu fa ay gan waroon a ñëw tey dañuy dem ak suñu jëmm fekk fa bagage loolu moo waral sax ana ñu indi bagage yu toll nii. ndax ndax bu nu continuer noonu noonu ngeen ko bëggee ba nga xam ne si waaw bu ñu demee njaareem noonu la fay demee bu ñu demee poroxaan noonu la fay demee bu ñu demee bu ñëwee tubaat mu demee fa noonu ndax loolu ngeen mébét waaw noonu loolu la ñu mébét loolu la ñu mébét tey ñaan yàlla jàpp la ñu si moo tax sax année daal bërëb bu nekk ci ñetti bërëb yi mën a limal danañ ko utal ay bagages yu doy yoo xam ne euh, euh, bërëb bu nekk ay bagages am dana fa teew ba bu ëllëgee ñu jublu ci leneen ndax mu mel ne tey mbokk yi ñu ngi doon sàkku ay lu mel ne suñu station ngir war ko daayira bi war na ko am te soxla nañu ko bu bagage yëpp matee nag ba bërëb yëpp am ay matériel comme nii boobaa ñu jéem a jubluwaat ci leneen mais daal moom moom la soxna si sas daayira bi jërëjëf Serigne Serif sant ngërëm ñel na la ñu ngi lay sant di la gërëm ci ñaan suñu borom ñu yàgg ko fekke yow ko teewee ci barke Serigne Touba ñu jëm ci jëwriñ ju mag ci daayira bi di Serigne Khadim Dieng mi nga xamante ni si e, e, liggéey ñayu xare la di jàmbaar ju mag kon ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay bu wér-wér waaw daayira bi da moom soxna sànq tudd nooru daaree ni kenn ku ci nekk nag am nga ci ab cër ñun ñi nga xam ne ñooy membre yi mm, kenn ku ci nekk jox na la cër boo xam ni moom nga féetiwoo mais man nag ñi ngi ma jox cër bi nga xam ne mooy euh, secrétaire euh, ba nga xam ne moo yor wàllu xaalis bi euh, ñu jiital Abdou Faasa ma topp ci Abdou Faasa di récupérer problème mu xaalis bi di ko jébal Abdou Faasa waaw loolu laa nekk loolu laa loolu laa féetiwoo ci daayira bi. waaw ah, sëriñ Khadim ginnaaw liggéey bu rëy boobu nga xam ni dafa xaw a sensible di xaalis bi euh, nu ngeen koy dajalee. ba waxtaanee ba nos ci liggéey bu rëy bii ngeen di defal soxna si at mu jot ndax nangoon naa ci sérif mu nii mébétam mooy seen mébétu daayira bi mooy euh, matériel bu toll nii ñu buñ ko amee euh, bàyyi ko fi am buñ bàyyi njaareem am buñ bàyyi poroxaan ndax ñetti événement yooyu benn ëpp ko dolli ci événement yi soxna ndax soxna si sax moom nëpp benn bi saa su ne mi ngi dem mi ngi jànkoonteeg ay gan fa tabarakallah macha allah di di di ak ay bi ak bis léegi kon nu ngeen euh, nu ngeen di dajalee xaalis bi ba mu doon ba mu doon benn dànk ba nga xam ni si dana man dara tax ngeen mën cee jënd dara nan la ci nag nu muy doxee noonu. waaw li tax ma laaj ko mooy ñi fam ñu ne ci àll bi te xamuñu nu muy doxee te leer na ma ne am na ci ñoo xam ne ñu ci bëgg bokk ñii États-Unis la nekk ñii Europe la nekk ñii Afrique du Sud la nekk ñii ci Afrique centrale bi ñii ci Sénégal gii te taxut ñu xam euh, nu ñuy dajale xaalis bi ba mën koo jëbbale soxna si ba mën a joxe seen participation ci liggéey bi léegi loolu ma bëggoon ci ak leeral ndax ñoom ñu mën cee am gindiku waaw dégg naa li nga wax euh, xam nga problème mu xaalis moom dafa nekk lu xaw a lu xaw a jafe tuuti ci gérer ko parce que problème xaalis moom moo mel noonu parce que kenn ku ci nekk ak na ngay gisisee mais nag su suñ borom moom mi ngi ñuy suturaal ba liñ ci bëgg lépp ñu ngi koy am parce que nit ñi moom euh, buñ la joxee seen xaalis euh, buñ la joxee nga bindu euh, teg ko ci condition yu leer yaakaar naa du am du am benn problème. Euh, ni comme li nga wax nag nga ne waa bitim réew yi Europe kenn ku ci nekk ñu ngi bëgg bokk ci daayira bi euh, parce que diggante bi dafa xaw a xat mais dañoo jël disison décision euh, ba ñoo jébbalee daayira bi après ñu ubbi benn compte boo xam se ne nii <coughs> dañ koy lancé message boo xam se ni day dem fépp ci réew yëpp nga xam ne képp koo xam se ni ba nga bokk ci daayira bi. soo ñu woowee euh, dinañ la jox tegtal yoo xam se nii ci ngay mën a jaare ba bokk ci daayira bi parce que euh, am na ku ci nekk ku ñaan euh, Mountakha Ndiaye Gabon moom ubbi na ubbi na benn whatsapp whatsapp boobu boo gisee ñu ubbiko ko loolu rek lañ ci jublu pour yaatal ndax liggéey suñ Sëñ waa moom yaatal la rek yaatal la chaque fois loolu la ñuy soxna siy wax maanaam liggéey bi moom yaatal leen comme que nag mooy njiit di te nee na nañ yaatal maanaam jàpp nañ ni pour yaatal bi moom foofu rek la ñuy mën a jaare pour yaatal moo tax euh, mun taxaa njaay ubbi ubbi whatsapp boobu pour euh, chaque fois ñi ngi waxtaan di ci yeete di leeral maanaam membre yi kenn ku ci nekk position ba nga war a féete ñi ngi koy dèjà ñi ngi koy laase ci kii bi ci kii bi ci whatsapp bi pour mu mën a yaatu pour mën a maanaam ñëpp mën ci jot ba xam maanaam sartu yi nan lay doxee. tubarkalla léegi bu nga xamante ni si dajale nañ ko ba pare. Euh, euh, bala ñuy jënd bagaas yi day réunion bureau bi ñoom lay doon wala réunion générale lay doon boo xam ne si ñëpp dañuy dëppoo ci ni lii lañ war a def wala bureau bi ñooy sart ñooy ñooy jël décision rek ni nañ def nangam loolu nu muy tëddee. waaw d'accord mooy par exemple bu ñu bu ñu récupérer xaalis bi ba dajale ko euh, su màggal gi jub seen yi bala ñuy jënd bagage fa maam ñi nga xam ne ñooy membres yu mag yi parce que munoo jël ñëpp kenn ku ci nekk nga woo ko téléphone na ko dañuy def nangam mënut nekk voilà comme que nag ñoom dañ ñoo doyloo ba jiiteel ñu ñun membre yu mag yi yaakaar naa ne bu ñu xoolee leen ba tëral ko rek ñun ñëpp ñoo ci àndandoo ndax yaakaar naa liggéeyal sëñ Touba moom kenn ku ci nekk loo def lu nekk sa bopp nga ko defal yaakaar naa ne tamit loo ci def lu nekk moom sa bopp nga ko def defaloo ko kenn te comme que ñun doyloo nañu ba jiital ñu tamit aussi maanaam luñ ci mën di def rek dèjà ñëpp ñoo koy mànkoo waaw ñun njiiti daal lu ñu waxtaan ba jubóo rek yaakaar naa ñëpp ànd nañ ci. ah jërëjëf sëñ Khadim cant ngërëm ñeel na la ah ñu ngi sant bu baax ci tontu yi leer na tuba fakala macha allah ah, di ñaan sunu borom nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ci dégg liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar ci eh, numéro ku ci a bëgg information am na numéro buy daw ci suuf ah, boo ko jëlee boo contacté ñi nga xam numéro yi rek danga xam nu ngay jaar ba dugg ci ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm liggéey bi rafet na kenn ci jëwriñ yi ki ñu taxawal nag mooy soxna Bali moom Cheikh Mamadou Muntaxam Cheikh Abdoul Bachir ñu duppee ko Soxna Bali Muntaxam Serigne Souhaïbou ah ca mu nekk jëwriñ jiite Bali yi liggéey bu rëy bi soxna si Bali yi eh, soppee Soxna Bali yi ak daayira Nuuru Daarayni liggéey mu mel ni yéen leen koy defal taxawaay bi ak yitte jëkk positif bi loo leen di dénk. ñi kay wax dëgg yàlla tubaarkaala amatuma loo xalaat duñ naan amul luñ leen di dénk wax dëgg yàlla ndax li ñu leneen war yëpp ñu ngi ci lii moom kontaan dong lañ ci war a def wax dëgg yàlla te moom lañ ci def nag kontaan ci lool nag ndax li ma ci gën a neex mooy seen yéene dafa ëpp lii kenn ku nekk ci ñoom rek yéene ma ëpp na lii waxuma laak nag bu ñu booloo di ko def te li ci gën a neex it xam waaw waaw waaw waaw ni ñoom ni ñu liggéeyee eh, liggéey bi ànd ko ak yéen nga xam ne eh, mooy ñooy baali baali yi ah, loo di loo leen luñ ci war a dolliwaat ak loo xam ne si moom lañ ci war a yokkaat pour yitte ji ak positif bi gën a mën a dolli ko ak looy dénk kon ñi nga xam ne si ñoo koy diglu ndax kon loolu bu amee ñu am daayira bu soso ci biir këram tudd daree Daarayni ngeen bokk ci turandoo turandoom yu mag yi di soxna Baali mun Muntaxa di sa waajur nga bokk ci ñu koy liggéeyal am na loo war a dénk euh, bokki taalibe yi nekk ci àll bi. gën a góorgóorlu rek goor a góorgóorlu rek gën a jàpp soxna baal ndax ñun ñoom ñëpp ku ci nekk ci ñun comme li ma la wax léegi rek ku ci nekk ci ñun yéeneem ëpp na lii te soxna Baali moom day international wax dëgg yàlla ñun ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk ku nekk daayira bi nuur daayira tamit ku ne da cee mu noonu loo xam ne baw ñu kenn ñu ngi ciy woo ñëpp

nag moom daanaka ñu nekkandoo ay gone ci biir kër gi yarandoo màggandoo te damay faral di wax ni jikko ji soxna Bally yore boole na ko ku ne ndax yàlla dimbali na ko ba képp ku mas a jaar ci loxoom ñëw ci kër gi euh, yar na la yar goo xam ni boo demee loo mën a gisit dana woyof toyu ci yow ndax ku ne xam na ni ñun amuñu guddi amuñu bëccëg euh, waxtu wu ne dañ koy liggéey mu loolu bokk na ci lu nu dimbali ak jikko yu mu def ci ñun ba tax foo mën a dem da nga fa mën a nekk looy dénk baal yi nga xam ne si ak ñi nga xam ne jot nañoo jaar ci loxo loxoy soxna baali ca nekk ci kër. waaw salaamaaleykum maa ngi lay nuyu bu baax tey am kontante ci lii ngeen def tey ndax soxna Bally moom lépp lu ko waay defal danga koy jéem a fay ca doo ko mën a jot ndax ji nañ ci ñun loo xamante ne ni luñ ko defal rek asaka yéene la bala maa dem ci daara ci baal yi ci nooru daara yi ni lay njëkk wax acte bi ngeen def rafet na trop suñ borom tabaaraka wa taala mi am pay yàlla na leen fay lu koy seen jot te soxna Bally moom lépp lu ko waaye defal. am naa yaakaar ne loo ci séntu suñu borom dana la ko defal ndax Cheikh Abou Madiyana naa ko jur Cheikh Xadima ko jur ca liggéeyal na ku baax ca waajuram liggéeyal na ku baax suñ borom indi ko ci ka sëriñ Serigne Mountakha mu fi jëf lu baax ah kon lu ngeen ko defal rek yàlla ngeen ci daje ngërëmul Seexul Xaddim ca lu ngeen indi ren déwén ngeen am lu ëpp lii te ku ci bokkutoo mu ñëw bokk ci waaw ñu ngi ciy woo ñëpp ah di wax baal itam ñu gën a góorgóorlu ndax soxna baalim lañ la tudde rek doy na royuwaay te soxna Bally euh, ñi nga xam ne jaar nañ ci moom defal nañ ko loo xam ne defal na ci defal na leen loo xam ne mënuñu ko koo fay soxna Bally yor nañu yar ñu yërëm ñu di ñu dimbale ci saaxirin di ñu bindale ci baatin alalam du fekke suñ soxla xalaatam bu rafet bu la xoolee bëtu yërmandeem rek lépp lu sa jaaxle damay wax ne soxna Bally boo amee problème sax boo jàkkaar moom problème bi jeex ndax ñeewante gi mu am ci yow ak yërmande gi mu am ci yow ak cofeel gi mu am ci yow di ko dund ci yow ñun moom dañ koy ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala mu guddal fanam yër wéral ay ram mu dem ba lii nekk loo xamante ne nii bokk ci daayira yi gën a réussir ci àddina bi ci barke Xaadimul Moustapha kontaan nañ torop waaw soxna Baali moom lu ko waay defal mënoo ko fay. ki nga xam dañ ciy teg ki nga xamante ni si moo yore wàllu xaalis bi di Abdou Faasa waaye kooku ku ko xamul turam mbaa nga xam kër gi mu doon sama rakk ma yar ko mu nekk ci biir kër gi kooku euh, kon ni la mooy xaalis bi sa xel war naa dal waaw bokk taalibe yi ñoo ngi tax ak ñoo taxaw a kenn ci jëru ñi muy sama rak mu bokk ci ñi nga xam ne si mën naa ni maag ci ñi ko yar bokk ñu màggandoo ci biir kër gi yarandoo ak dëggoom ak pësteefam ak yitteem jërul présenter ndax ku xam kër gi boo xamee Abdou Faza xam ne buñ ko dénkee xaalis war nga ci am xel mu dal sa yëb du euh, xaalis bi nun ko dajalee ba man ko ba mën a doon benn say ban man cee def lu toll nii euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh di siyaar mbokki taalibe bi fi teew yëpp di sant bu baax di leen gërëm bu baax ci teewaay bi wax dëgg yàlla yitte ji rëy na lool rafet na lool waa xaalis bi noom ñi ko seq ñoo am rek ndax man moom tuuti naa ci di leen ko dencal waaye kóolute gu ñu am ci man moo tax euh, liggéey bi dafa yomb ci man wax dëgg yàlla amuma ci benn problème ndax ñoom ñooy wër dem lijjanti dajale ñëw man denc laa ci am amuma ci benn benn problème moo tax dama leen sant bu baax ci jiital gi ñu jiital wax dëgg yàlla xam naa ne confiance boobu amuma ko sax ñoom ñoo am seen xel mu daal rek waaye wax dëgg yàlla li leen di sant bu baax moo tax amuñ ci benn problème. Euh, beneen laaj bi mooy looy looy looy so looy looy soññee ñi nga xam ne si membre yi jot a bokk ci daayira bi ak ñi nga xam ne si ñoo ngi dégg euh, daayira bi di soppee Soxna Bally ca néew ñu ci réew mi ak ñi ne ci biir réew mi ca seen i cotisation des loo leen di dénk ak ñi bëgg ñëw kenn ku ci ne yoon wi muy jaar ba agsi waaw di leen soññee di leen wan lii rek ndax lii rek doy na ab soññ ndax lii ku ne la dajale nañ ko te cotisation li des sax bari na xam nga bu lépp matoon bagage yi dana fi gën a bari waaye cotisation yi li des ci àll bi moo ëpp li ñëw kon nag moo tax damay soññ sama mbokki taalib di ko bopp di leen soññ ñu gën a góorgóorlu ci daayira bi yàlla ñun moom liggéey Sëñ Tuubaa rek lañ ci buñ ko dajalee jubluwuñ ci dara lu dul fexe soxna si bi bisam bi jag ndax parce que ñun la dañu cee doyloo kon nag dañuy euh, dañoo war a soññ soññ suñu bopp soññ mbokki taalib yëpp ñu fexe ba bis bi jàkk loolu wax dëgg yàlla loolu rek laa leen di soññee di soññu ñëpp euh, teg yi gën a gën a ñu gën koo dajale bu baax. jërëjëf Serigne Abdou cant ak ngërëm ñeel na la ñoo ngi lay yaa di ñaan suñu boroom mu dimbali ñu ban def ko juróom-ñaar fukki at ren ci barkeb Serigne Mountakha bi ñu tey ñoo ngi continué ci liggéey bi taxaw kenn ci jëwriñ ñi waaye dafa féetewoo cellule bi nekk dakaar nooru daare ni bi nekk Dakar ndax fu ne ñu ngi fa ay membre waaye dafa bokk ci jëwriñ ji féete Dakar ma war koo laaj waa Dakar nun waajale bis bi ak nun koy séentoo bisimilah. maa ngi sant yàlla bu baax di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di julli sayyidina Muhammad rasulullah sang sangi di gërëm sëñ Tuubaa xaadim rasul di gërëm sëñ Tuubaa xaadim rasul wér wér di santaat suñu yaakaar tey ak ëllëg sëriñ Muntaxa Ahmadu Bachir di seen di santaat suñu yaakaar tey ak ëllëg mi sëriñ Muntaxa Ahmadu Bachir di sant eh, suñu soxna Bali Muntaxa mu sëriñ di ko santaat bu baax a baax a baax a baax di ko santaat bu baax a baax a baax mu yàgg fi lool lool lool te ànd ak wér yàgg fe suñ sëriñ mu suñ Muntaxa Ahmadu Bachir yàgg leen fekk si kër gi ñu liggéey suñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tey moom sama xol sedd na guy ut yàlla sama xol sedd na sama xel tamit gën naa daal sama xel gën naa daal bu baax a baax a baax ñu ne ay ndaw lañ yaakaaruñ kenn kër suñ Tuubaa te tamit bëgguñ kenn kër suñ Tuubaa kon yaakaar naa lii kuñ ci oo rek dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sañ sama bopp di sant waa Dakar si njiit Amadou Yade ak Abdou Saman Ndiaye Ousmane Seck Lemine ak Vieux ak sama xarit bi taxu taxu taxu ni Sampeg di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Touba di sant président bi muy su Yade su ma tëddee si tudd na waa daanu daanu yëpp di sant siñ yaay suñu xarit Yande Diop suñ ko tuddee tudd nañ soxna yëpp waaw liggéey daal suñu xol sedd na si suñu xel dal na si bu baax xanaa di gën a soññewaat ñëpp daal ñu gën a jàppantewaat te gën a téyantewaat te gën a fonkantewaat bu baax a baax te xam ne liggéey suñ Tuubaa rek a des si àdduna liggéey suñ Tuubaa képp ku la rek dalaa bëgg a dimbale kon nañ yokkaat laxasaay bu baax a baax. yaatal xol yi tamit bu baax koo gis jàppe comme sa bopp te ko gis jàpp ne sax moom moo la gën na nit suy liggéey suñ tubaa xolam dafa war rafet xolam daa war a set te tamit suñuy ànd ñu ànd si dëgg di gën a jàppante bu baax di gën a téyante bu baax di gën a fonkante bu baax a baax a baax waaw kaddu yi moom kaddu soñ la kaddu sant sant rek waaw li moom ñu ñaan tamit di ko def chaque année di def sa année dem bay def ay trang yu ëpp lii ne lii yaakaar naa tàmbale tàmbale dong la ne lii yaakaar naa mu yàlla dimbalee lu si kanam moo daax incha allah bu soobee yàlla. Euh, li ma la bëggoon a laaj mooy euh, ni ñu ni ñu dajal liggéey bi fa fas yéene ko jébbale tey euh, section bu dakaar seen participation dafa ñëw wala yéen da ngeen a jënd bagages yi mu fekk si bagages yi ñu jëndoon wala nu nu ngeen waaj a yéen. waaw xam nga dañu ne mbooloo mooy doole. te daayira bi Nuuru Daarayni boo xoolee daf mel ni ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñu ñëpp ñoo bokk ndey baay te ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg li bëgg-bëgg rek moo ko may ak doole rek mooñu ko may te jàpp na waa ak waa Dakar amuñ la li ñu umpalante lu fanaan Touba fanaan si Dakar te doole moo ñu may loolu te jàpp naa si yaay soxna Bally lii sax itteelu ko mbooloo bi ak doole bi ak xol yi ànd moo ko gën a itteel kon nañ fexe xol yi gën a ànd ñu gën a nekk benn te di ànd si dëgg te a tax te xam ne liggéey suñu tubaab boo si boo liggéey moom yite la dëgg rek dëgg mooy njëkk mooy mujj ngisal bañ si am daal utiliser ne lu waaye def sa bopp nga def defaloo kenn waaw maa ngi jégalu si kàddu yi bu baax a baax a baax. Ah, cant ak ngërëm El Hadj na la ñu ngi lay sant bu baax ci di la gërëm te ku xam ni sa dégg ku déglu ni nga waxe xam ni yitte ak positif ak ak loo dem ci sa xol ba mënatoo koo denc moom ngay waxe waaye ndax lamay faral di wax ni wax ay kaddu bu jógee ci xol ci xol la jëm waaye bu jógee ci làmmeñ ci nopp képp la yem ñu ngi lay sant te di la gërëm te ñaan yàlla ñu def ko juróom-ñaar fukki at yu tàmbali ren ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñoo ngi taxaw ak jëwriñ ju mag ji di Sëriñ Yuusu Yadd moom xalaat bu rëy bu rafet bi ak yitte jéeg positif bu rëy bi ndax jiite mbooloo dafa yombut ndax nit dana ci nekk am daf dana ci nekk borom xel dana ci nekk euh, ku xelam manqué dana ci nekk ku digg doomu dana ci nekk nga mën a boot ñëpp euh, euh, boot ñëpp di kafa ak ree ak ñoom fexe ba àndandoo doon benn danga fas yéene lëggal Serigne Touba ca jaari ko ci soxna baali dalal nam xel dolli na yaakaar Serigne Youssou mu bëgg la laaj liggéey bu rëy bu rafet bi wax dëgg yàlla yitte ji ak positif bi ak dal gi ak ne jàmm ji nga am ba mën a boot mbooloo mi Euh, secret bu foo ko jëlee. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. gannaaw bu ñu santee yàlla bu baax a baax julli Seydina Mohamed ñu sant Serigne Mountakha taxaw baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ñaanal tamit ci tax ñu waral bis bi yëpp di soxna Baali Mountakha jiite ñu uuf ñu njaboote ñu ñun ñëpp doon suñ lépp féete ñu si côté bu ne kon ñu ngi koy sant baax baax di ko gërëm baax di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ba lim yéene liggéey maamam ju tedd ga suñu borom yeggale ko mu defee ko kawe njortam mm, wax nga dëgg sëñ Basiiru wax jiite mbooloo moom yomb na yombut waaye mbooloo mu ànd tënku ci benn say doon benn say moom jiite ko mën naa laa wax ne du lu yomb la ba tax na dañuy jox kàddu gi sëñ Muntaxa Njaay mi di vice président bi mu leeral yooyu yëpp ci kàddu président. Eh, jërëjëf suñu du kàddu yu rafet na tegginu na yaru na eh, ku la dégg xam ni kàddu yi jëwriñ la ndax yar teg nga ko ci yar teg ko ci teggin eh, yàlla na la Sëriñ Tuubaa taxawu gën laa dooleel ba liggéey bi fa nga ko yéenee aggale suñu borom kàttanal la ba nga àggale ko ndax man de naw naa la lool ci doxin wi naw naa la ci yitte ji naw naa la ci positif bi. Euh, ak jom ji ndax jom ku ko amut doo mën a liggéeyal sëñ Tuubaa ndax da nga dégg lu ne danan la wax lu ne waaye tëx gumbalu ndax xam ni bu daggut dikk ca boo bayiwut da nga àgg fa nga jëm loolu laa lay ñaanal cay ñaan suñ borom mu bay la fi ba ba ci kanam liggéey euh, ki tax a jóg liggéey bi sëriñ Tuubaa ci ca njar ko ci soxna Bali damay continuer kii nag moom wuude bi lu wax ci béyu dañ naan dara bee tax mënu wax ci moom dara ndax sama xarit la sama jarbaat la sama lépp la ba pare nag mu tudd sëñ Muntaxa boole ci loolu rek doy na ma sëkk tur bi rek doy na ma man rawatina nag mu yor jikkoy boppam di yore occupé ñaari poste ndax li ngeen di gis ci wàllu média académie Ahlul Minan moo ko yor yore yi jumaay Darul Minan ji moom la ko sëñ Muntaxa teg ci loxoom mbirum sonorisation bi lépp moo ko yor doyut mu nekkaat ci wanagu soxna baali ñii membre fondateur yi formé Daayira Nuur Daarayni ci la bokk mu amub yar ami teggin am yitte am pëste fas yéene lëggal sëñ Tuubaa ànd koog njabootam gi sëñ taxa Njaay Gabon moom mu ngeen di dégg moo nekk nii sëñ Muntaxa noo gisee liggéey Nuur nii bi ak seen liggéey bu rëy bii ñu xoolee at mu jot ñu def ko. bañ agsi ci cat li ba war a jàkkaarloog soxna si jébal ko liggéey bi looy dénk njaboot gi ak ñii di ñi lay seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi na daayira Nooru Daara ni ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant. di ñaanal bu baax Serigne Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal soxna Bali Mbacke Mountakha mu yàgg fi wér ak njabootuk Serigne Touba gépp euh, Serigne Bassirou li nga laaj am na solo ginnaaw bi nga xamante ne bi dégg kàddu président bi nga xam ne moo jiite daayira bi muy Youssou Yade ñu ngi koy sant bu baax euh, di ci toftal tamit euh, ki nga xam ne moo jiiteel jigéen ñi muy soxna Ndey Diop moom ñu ngi koy nuyu bu baax baax di nuyu membre daayira bi yëpp nag bàyyiwuñ kenn ñi fiy jot a jaar di wax seen kàddu ñu ngi leen nuyu leen sant bu baax di leen gërëm Euh, Basiirou bala maa tàmbali ci loolu damay sant bu baax a baax njiit yi nga xamante ne bi moo daay rek muy Youssou ndax euh, daanaka am na si loo xam man yenn saa du ma am jot wala kenn doom jot waaye day day boole yitteem ak euh, lépp bàyyi liggéeyam ñëw waaye lu na lay dégg ci lool nag euh, dañ ko ci tooñ loolu lañ koy wax waaye teewul day jàpp xam ne liggéeyal soxna Bally rek moom moom moo ko fi jar ndax mbooloo moom boo leen jiitee faaw am wax wala ñu lay tooñ ak yooyu waaye ku ko gis xam ne jàmbaar la ndax at yi nga xamante ne bii jiite na ko jébbale yu am solo lañ fi jébbale ca ñëpp teg nañ seen bët kon loolu moom moo ko jiitee kon loolu ñu ko ci sant bu baax di ko ci gërëm bi tamit ànd naag waa daayira bi yëpp nekk benn Euh, ànd ñun ñëpp benn ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi ku ci xewle da nga da nga fa gis keneen ak keneen kon loolu sant la euh, ak ngërëm la di gën a ñaan bu baax a baax ñu gën a pësteef waa ci daayira bi gën a jàpp ci daayira bi di gën sant baax di la sant yow mii tamit Serigne Bassirou Samb ak soxna yi ñëw yëpp xam naa ci kanam tuuti dana gis ñi ñëw ñëpp yow wax dëgg yàlla yow lépp lu ñuy def ci Kazu Muntaxa wala Kazu Baali yaa bi yëpp nag ak liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey nañ ko euh, war kaa ñëw jébale soxna Baali Mbacke Muntaxa di suñu sëriñ nag di suñu lépp moom lañ yaakaar ñun ku ñu ku ñu gis gis ñu ci soxna Bally fépp fu mu nekk rek ñun ñoo nga fa jaral nañu nag lu ne lu ne nag jaral nañu ko ñun ci àdduna di sant baax a baax euh, sunu soxna Baali Mbàkke parcelle mi nga xam moom ñëw na jiite Baali Baali ak soxna Baali Ndiaye ñëw fekk si jébbale bi moom it ñu ko ci sant bu baax di ko gërëm di sant mbooloo yëpp nag bàyyiwuñ kenn gis nañ ñëpp na xam naa ci kanam tuuti leen présenté kilifa yi nga xamante ne bi ñëw nañ ci jébbale bi ci jébbale bi daayira bi di sant nag mbooloo mi fépp fu nekk bitim réew ak fu mënti doon rek euh, gis nañ yéene yi gis nañ jëf ji kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm kàddu yi nag euh, maa ngi ci jéglu baax ginnaaw président wax na ba noppi rek mënu ma ci woon a ñàkk bañ a kii waaye ci ndigalam rek laa waxee waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. a ah, kaddu yi rafet na loolu moo nekkoon bokki talibe yi bokki jullit yi wàccaayu jébbale bi. a ah, salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar di ñaanal Serigne Mountakha suñu borom guddal fanam bàyyi ko fi di ñaanal soxna Bally Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. Ah, tey jii nag maa fi teewal Touba Diagne mi nga xamante ni si mooy jëwriñ yi eh, mooy président organisateur bi ñu toftal ma ci moom ma ànd sëriñ sa deex mi nga xamante si moo taxaw fii ci sama wet di sant membre yëpp ndax tënku nañ ci ndigal ñi ànd di xàccandoo di dóorandoo te xam ne liggéey bi noonu rek la ñiy sàkku ci ñoom bi bu bis baa kenn ku nekk rek na nga ànd ak xel mu dal te ànd ak ak dal ak teey ba liñ bëgg liggéey ci kër soxna si ñu liggéey ko ci anam bañ ko bëggee loolu rek la ñuy ci ñoom kon kàddu yi daanaka jërul muy gudd lu ci bari bu sëñ Touba Diagne ñëwoon tey jii dana ko mottali kon dañuy daaneel foofu suñu kàddu rek di sant ñëpp daal te di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, jërëjëf sëñ Mountakha sa message jàll na bokki taalibe yi bokki jullit yi lii moo nekkoon interview yi nga xam ne si moom lañu leen jëlale woon ci jëbale bi ñu jublu nag ci jëbale bu mag bi di bàjjan ak soxna moom yi nga xam xamante ni sii mooy suñ président d'honneur ah, kon nañu àndu teewlu tuuti Mountakha Ndiaye Gabon indil ñu ko. الحمد لله المجيب القدر من قد زنا فلن بليلة القدر الحمد لله المجيب القدر من قد زنا فلن بليلة القدر معزما لسانها في الدار حتى قدت خيرا من الفسار ثم الصلاة والسلام أبدا على الذي خير البرية بدا محمد والآل والصحب الكرام ما جفر الداعي بأفضل المرام هذا وإني اليوم سستمتار من الكريم كلما أوتاري يا ربنا بفضل غاث ليلتي فاستر معائبي واسمع قولتي يا ربنا بفضل غاث اليوم أهل أموري وأمور قومي يا ربنا بفضلك في كل ما يدرني وللوداج رسول ما يا ربنا بيمنها الجنان أبلي وتاير لي الجنان يا ربنا بجاه النورين هب لي وللأمة في الدارين واطلق بنا نجا نجاين وفلا وجه قلوبنا لثود والسلام waaw li naa saadatan ta doomu wal fadla yaa man mal ko ya doomu wasalliyan xayra salaatin wasalaam ala lazi min doori daaru salaam wasalliyan xayra salaatin wasalaam ala lazi min doori daaru salaam محمد باب الودانا في الردى ناي المدى جالد جامس وردا والآل والزعب ومن لقد دعا ما آب بالفوز العظيم من دعا السلام ورحمة الله تعالى وبركاته bokki julli bokki taalibe yi bu ngeen gisee jataay bi xam ni la daan xew rek a xew muy daarul noor daari ni bi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu bu soxna Bali ñoo fas yéene jébli seenu liggéey ni ñu ko daan defee naka jekk tey nag ñu gën a santaat suñu boroom nañ ko daan sant di sant Serigne tubaa di sant soxna si bu baax ci nangul bu mu nangul liggéey bi te jiital ci soxna moom mi magam ju tedd ju baax ji tey nag dañuy feeñal sunu asaka yéen rek ci li fas yéene liggéeyal soxna Bali ndax mu mëni su koo dab. mu ne suta seet ak pëndam ci liggéeyal sëriñ bi waaye dimbali gu mu dimbali ak gàttandu gu mu gàttandul boppam tax mu nangul ñu liggéey bi ñuy nab nabi di fas yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ci moom moo waral jataay bi tax ñu daje kon damay njëkkante ak waxtu yu jox sëriñ Sërif Ndiaye mi nga xamante ni si mooy secretaire général bu daayira bi di porte parole bi mu jot leeral ab liggéey bi. bii ci jëri jëwriñul Yuusu Yàdd mi nga xam ne moo yor xel mu rafet mu rëy mi te ànd ko ak moom ak membre euh, day yëpp rabbil alamin bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen balu àq waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Mawlana saaxibul fadila Cheikh Sidil Maxtaar xalifatul am li taifatil muridiya suñu borom bàyyi ko suñu kanam te wéral ko ba li mu yéene liggéeyal Sëriñ suñu borom defal ko nu kawel jortam waaye di wëlbatiku di nuyu ak a ziyaar suñu sëriñ suñu yaakaar ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mamadou Bachir di ñaan yàlla suñu borom guddalaaw fanam te wéral ko ba li mu yéene liggéeyal Serigne Touba ci kër Cheikh Mamadou Bachir suñu borom ah, di dellu suñu kàddu ci kanama suñu kilifa yi toog ci lépp rek di jéggulu kàddu yi nga xam ne ñoo ngi koy yëkkati ci suñu kanam kilifa yi toog suñu ginnaaw. di ci jiital soxna Mominatu Mbàkke bintu Cheikh Abdoulahi borom dër bi waaye di ci toftal sunu bàjjen soxna Bali Mbàkke ibnu Cheikh Sohaybu al masxuur bi Bali Muntaxa dañu gën a xam aw turam ci soxna Bali Muntaxa ñu ngi leen di nuyu bu baax mboolem mbokk yi mu àndal yépp euh, di ci nuyu ak a soxna Bali Gueye soxna Bali Daaru Tanzil ñépp ñu ngi leen di nuyu xanaa di jéggalu kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati seen kanam rek dafa fekk ne ndigal moom bu bu bu jubee rek daanaka jëfe rek moo koy waral ndax Sëriñ Tuubaa moo xam ne laa tafaalu shay'an bi xayril izni fal iznu sartun fi xabuli ñu ngi jéggalu kàddu yi nag di wax nag ci turu daayira Nuuru Daarayni bi nga xam ne sëriñ Yuusu Yàdd mooy jëwriñ ji feggoo ci ak sëriñ Muntaxa Njaay Gabon waaye ànd ci ak sox sëriñ Abdou Faasa mi nga xam ne mooy trésorier bi ak sëriñ Xarim Dieng mi nga xam ne mooy secrétaire général waaye du ñu fàtte mukk itam sunu président soxna Ndey Diop mi nga xam ne moo jiite mboolem jigéen soxna bu bokk ci biir daayira Nuuru Daarayni ànd ci ak soxna Daaru Seck soxna Ami Touré yéen ñëpp ñoo ngi leen di suivre bu baax euh, di wax rek ne waa daayira Nuuru Daarayni soxna si ñoo teewaatoon fii tey comme ni ñu ko baaxoo di defee ci at mu nekk ci waxtu wi xanaa di bokk rek ñun ñëpp di wax alhamdulilahi rabil alamin bi nu suñu borom baaxee ñu teewaat fii tey te mënoon a def di gën ndax bu nu mel ne ñi fi jóge suñu ginnaaw gënuñu leen ba tax suñu borom yóbbu leen ñun ñii fi des itam suñu borom defalun ko lu tax mu banu fi kon dañuy wax rek alhamdulilahi rabil alamin ñaanal yàlla suñu borom fekk leen ko ay ati at ci baaxoob sëriñ bi mu mel na tey du nu fàtte mukk itam El Hadj Sall mi nga xam ne moo jiite mboolem membre bu nekk dakaar ci ànd koog ñoom am mat yàgg ñi nga xam ne ñoo fa nekk sëriñ Lamine ak sëriñ Abdou Ndiaye ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar ah, soxna si tey waa daayira bi ñoo indi woon seen liggéey mu toll ci comme bagage yi nga xam ne moom la ñu baaxoo di indi mu mel na nag bagage yi ñu fi indi woon daaw yàlla dafa dogal ñu yóbbu woon ko Poroxaan ñoom nag li seenu liggéey ak li ñu mébét mooy dëkk bu dëkk bu nekk fépp foo yëngu ci wàllum teraanga walla ci wàllum dalal gan bépp bagage bu fa nekk ñoom seen yéene mooy def ko fa ndax loolu la ñu sartoo bi ay bagage yi kër gi moo ko tax a jóg loolu moo tax nag bagage ba ñu jëndoon daaw dañ ko yóbbu poroxaan bàyyi ko fa nga xam ne bu ñu dee demaat poroxaan suñu jëmm yi rek mooy dem ndax yóbbu bagage di ko indee ko yem it dañoo xalaat ne day toj wala muy manqué wala muy réer moo waral bagage yi tey ñu jëndaat ko ngir indiwaat ko tey ngir sa kanam ngir xam ne seen mébét mooy njaaree mag Tuubaa ak fu mu a doon bépp bagage boo fa soxla ñu indi ko ci sa kanam comme ni nga ko bëggee bagage yi nag moo nekk nii toll ci juróom fukki tarmus yu mag ak 20 tarmus yu ndaw ak 24 pañu raxasu ñaari douzaine ak quinze palaat yu mag yoo xam ne ci lañuy ñuy def kaas yi ak 15 plate yu ndaw yi itam waaye 6 carton kaasu café waaye cinq kaas itam yi ngay kaasi boisson yi paquet yi 5 5 yu boisson waaye 20 kudd yu mag ay paquet 10 kudd yu ndaw ci paquet itam 10 matelas yu ndaw it euh, am na ci waaye 15 peñe mburu yu mag it mi ngi ci 20 peñe yu mburu yu ndaw napp yi tamit ci ñaar fukki napp darab yi toll ci six darab yu mag ak dix darab yu ndaw ak goblet yi nga xam ne ci la ñuy raxas kaas yi comme mel na paan yi ñu jëndoon daaw dañoo gis ne gobelet yi dina mën a rangale kaas yi ba bu ñu paree mën ko ci defaat ba mu sàmm sàmm gu wér boo xam ne saa ko soxla nañ ko mën a dinañ ci mën a def jëfandikoo comme ni mu waree di delluwaat nag di santaat bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi yëpp waa daayira Nuuru Daarayni fàttewuñu kenn mu mel ne suñu membre yi nga xam ne ñoo nekk Thiès ak ndakaaru ak waa diaspora beeg mboolem ku ci jàpp ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm euh, di ñaan yàlla suñu borom bi xam ne rek liggéey bi moom nii lanu ko baaxoo defe te nii lañ ko fas si defee ba keroog suñu borom dañu fi jële ndax mu mel ne bu ñu ko defut itam suñu borom dina indi ñeneen ñu ko def ndax faaw ngeen am ku leen liggéeyal sëriñ maam leen ko defal ndax ba muy wax naan darajat yi taalu walay sa tan xafit wa man naa minal wala xafte xufit loolu day wane ne buñ ci jàppee mu dem buñ ci jàpputit kon nag fexe cee jàpp te rafet ci moo gën di ñaan yàlla suñu borom defal ñu dégg ak topp suñu borom boole xol yi ñu ànd doon benn ngir xam ne lii kenn nit rek mën na sax lu ko waaye mbooloo moo gis yërmande nga ca te itam ñuy ñaan yàlla suñu borom ñu jàppante te wóolante te doylowante suñu biir nga ñaanal ñu ci te lépp lu ñuy def rek ñu jiital ci ak man wala ak xam ndax sëriñ bi day wax ne lépp lu ngeen di def ngeen jiital ci ak xam door koo def man la yaa yoo subbaanu yéen di mu taxalum ala amal la bu ngeen ragalee gàcce yéen waxambaane yi lépp lu ngeen def na ngeen jiit na ngeen ci jiital ak xam loolu moo waral nag soxna si ñu bëgg nga ñaanal ni bu baax ñaanal waa daayira Nuuru Daarayni bi ah, ñaanal itam bépp membre bu ci bokk suñu borom lépp lu ñu mébét ci kër gi suñu borom defal na ko mu kawe suñu jort waaye duñu fàtte itam soxna Bali Mbàkke Daaru Tanzil mi nga xam ne mu président daayira baali baali yi feggoo ci ak soxna baali njaay mi nga xam ne mooy tawu kër gi ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di rafetlu seenu teewaay di rafetlu seenu teewaay ñoom itam ci liggéey bi ndax mel na ne daayira yi ñaari daayira amut ñetti dayre amut waaye mbooloo mépp sam mbooloo la liggéey bépp itam sab liggéey la ñun ñëpp ñoo bokk fu mu jëm xay na tool ba yaatu kenn ku nekk nekk ci bërëb di bay waaye bu mbay mi ñoree itam sa kanam kon ñu ngi santaat bu baax ñoom itam di leen gërëm duñu fàtte mukk itam soxna Mariyamu Mbàkke bi nga xam ne mooy kilifa kër gi di ci noonu la ñuy jaare di siyaar sëriñ El Hadji Mame Thierno moom Cheikh Mamadou Mountakha di wàcc ba ci soxna Bali Gueye soxna Njóoba ñaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaare bu baax di leen gërëm di la leeral ne rek ñoom itam jàpp nañ ci liggéey bu baax fu ñu ci toll ñu ngi ciy dolli suñu xam-xam di ñu ci conseil di ñu wax fu ñuy ndax dañuy wax ne ku la jiitu ci néegu lëndam moo lay wan nañu fay toogee ñoom itam wax dëgg yàlla wan nañu fi ñuy jaar ba fu ñu naree juumee ñun woo ñu wax ñu ne ñun def leen nii bàyyi leen di doxi leen nii loolu itam daan la ko seeral ba nga xam loolu di ziar baax soxna ma Anta Mbàkke moom sëriñ Soxayb moom itam euh, amoon na yéene teew ndax dem nañ fa démb waaye mel na ay xat-xat rek moo ko tënk soxna si waaye rafetlu na ziar bi di la nuyu bu baax itam di la sant noonu lañ waxoon ne nañ ko jot li ci turu daare nooru daare ni bagage nag bi ko xoolee xayma ko mu ngi toll ci sept cent cinquante mille moom la ñu jënd ci ay bagages ñu ñaan yàlla balaa déwén nag nga ñaanal ñu ñu am ay sonorisation ndax bokk na ci li gën a ñor waa daayira Nuuru Daarayni ndax gis nañ ne matériel bépp boo xam ne moom la takk ci base yi wala rajo dañu koy luyee ba ci Poroxaan te jànkonte coono yañ ci amit euh, metti na te suñu suñu lépp lu waay di am ki bépp lu waay di bëgg itam kenn du ñu ci jiitu suñu suñu lépp loo soxla bala nga koo wax fekk ñu def ko loolu nañ bëgg nga ñaanal ci balaa yàgg ñu am ko ci kàttanu Cheikh Souhaïbou di ñaanal bu baax nga yàgg fi te wér euh, ba sut sa maam deew fan Cheikhul Khadim ñu ngi la koy ñaanal yàgg sa mag ju baax di taw di soxna moom Aminatu Mbàkke di ko sant bu baax moom mooy suñu président d'honneur lépp lu ñuy def naan dem ba di moom waxtaan ci moom bii rek lañ mujj dem këram ànd ci ak sëriñ Youssou Yade ak sëriñ Xaadim Dieng ngir fas yéene ko wax bis te itam bañ ko ko waxee lam ñu wax rek mooy saabu bu ci toll na ngeen ma ko wax ba bi muy ñëwit lim ñu wax rek mooy duma leen tardé la ndax daaw dafa mel na maa leen tardé loolu la wax waaye Mbàkke boo toogoon ba deux heures du matin yi ñëw suñu taalibe egg na ci dinañ la xaar ba nga ñëw te duñ ko def loolu ñu ngi la ciy sant bu baax di la gërëm euh, di sant Serigne Abdou Fassou bi nga xam ne itam moo trésorier bi ndax si daasi Malick radiyallahu taala anhu danañ wax ne nit ki boo ko dénkee ay kayit muy fukki nga laaj ko ko mu jox la ak weccet kenn gënu koo dëng waaye mi dem lañu ko dénk bu ñu ko ko soxlaa moo xam bis bu ma a doon waxtu bu mën a doon danañu ko jox kenn nañ ko ko joxe woon loolu itam ak jub rek moo ko waral ñu ngi la koy seeral te di la ko sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah, jërëjëf sëriñ Cherif kàddu yi matale na ca leeral na. yal na yàlla guddal fan wi leeral xel mi dëgëral taxawaay bi. ci barkeb soxna si ni liggéeyal mu mel ni ndegam soxna moom i toog na damay njëkkante ak waxtu wi jox koo xam ni moo war a jël kàddu fii ndax mooy jëwriñ ji turu taalibe yi lay wax ak nu mu leen di soññee mooy soxna Bali Guèye soxna Bali nag euh, li tax ma naan hasard amut sëñ Abdou Samad moo ko jur sëñ Magay jama Cheikh Adama taawu njëbbalu Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul bu doonee jëwriñ ci kër gi di liggéey jiituñ ci liggéey bi dana dalal suñu xel dana dolli suñu yaakaar kon dama koy jox kaddu gi mu soññu talibe yi nga xamante ni si ñoo ngi diglu ak ñi ci ñi ci jot a dox def seenu ñaqar seenu ñaq te nekkuñ ci dëkk bi ndax kenn ku ci ne am na loo yéene soxna baali am na loo ko bëggal sa bopp loo xam ne si sa jommi bopp mbaa sa wërsug bopp dala ko may kon nii ñu def tënku ah, dëgg yàlla ah, dana moom rek moo war ab taalibe kon dañuy jox kàddu ki nga xamante ni si maamam moo njëkk a sëriñ Serigne Touba loxoom jébbalu ci moom kooku bu nu wanee ak taalibe ak fu ñuy teg suñu tànk ak nu ñuy def ba liggéey Serigne Touba. Serigne mooy mboolem taalibe yi fi nekk te gëm soxna Bally bëgg te yàlla rekk tax ñu di ko defal la jëleen di beeg sëñ lépp lu fi may ren na ren ko ci doole sëñ fas yéene takk nag sunu laxasaay di ko liggéeyal moom nii ndax sëñ Tuubaa kenn rekk la te mii da amul morom day jigéen kat waaye góor ñi sutuñu ko ci lenn mm. ëpp ñu ko positif ci lenn ëpp ñu ko bëgg sëriñ Tuubaa ci lenn kon nag moom ñii ma descence bi ci gudd moom daal fu mu bëgg yegg yàlla na fa yegg nun nag ay taalibe lañ laxasaay rek topp ci ginnaaw fu mu ne foofa la rek foofa lañ jëm bëgguñu kenn xooluñu kenn lu may moom lii daal lañ bëgg yal na ko yàlla jàppalal ak yonent bi ak sëriñ Tuuba ak Seex Muntaxa Basiiru ak Seex Soñ bu Mbàkke waajuram bu tedd wa yal na ko yàlla defal barke mboolem muy mbàkke ak mbusoo bi ak jaxate lépp yal na ko saa takk teg ko ci loxoom bi mu di ko liggéeyal Serigne Touba ni ñu ko bëggee ci doole jégluwaat rek ci kàddu yi nga xam ne jëlaat nañ ko ci ngir am loo xam ne dañoo ko baaxoo di def chaque année addi ji nga xam ne moom lañ daan jox soxna Bali Mbacke Mountakha ngir jagleel ko ko lu bokkut ak li liggéeyub daayira bi di joxe tey nag mu mel na sàkk googu ñu ko doon sàkk bennoo gi suñu biir ngir xam ne rek liggéey yëpp benn la moo waraloon waa daayira bi sàkku ci soxna Bali Mbàkke Daaru Tanzil mu ñëw joxal ñu soxna Bali kado bi nga xam ne moom lañ ko indiloon ngir jox ko ko. ande jo ko bu ko defee rek ñuy jégaluwaat ci kàddu yi nga xam ne soxna si duñu fàtte mukk itam sunu yaay soxna Ami Njaay ci membre daayira bi la bokk ñu ngi la koy seereel soxna si moom itam di sunu yaay joo xam ne bàyyiwuñu benn yoon ñu dem lu ñu nekk mi ngi ci lu ñu dugg tam mu ngi ci waaye sëriñ Mountakha Ndiaye Gabon mi nga xam ne moom mooy vice président bi sonn ci lool matériel bii nga gis ñu indi ko fi amul lenn loo xam ne ni waa daayira bi jox nañ ko ci benn dërëm lépp da koy indi chaque année di ko taxaw comme ni bis bi jaadoo te du ci laajub dërëm loolu itam ñu ngi ko ci sant bu baax mboolem waa daayira bi yépp euh, di ñaan yàlla fi mu bëgg a egg ci lii muy liggéey nga ñaanal ko ci mu yegg fi nu fu kawe njortam waa soxna lay jot mi nga xam ne moo jiite soxna itam ñu ngi sàkk mu ñëw yëkkati fi ay kàddu te gàtt balaa soxna see joxe waaw kii ñuy jox kàddu gi dafa bokk ci jëwriñ yi jiite soxna yi nekk ci biir kër gi mooy ñu nekk ci wàññ wi ni ma ko waxee woon daayira Nuuru Daarayni bii day daayira boo xam ne dañoo sosoo ci wanagu soxna Bali am mébét am yéene am yitte am fu ñu bëgg a egg kon soxna Ndeye Diop bi nga xam ne moo jiite jigéen ñi looy ñaax bokki taalibe yi nga xam ne mbokk yi ba pare di gërëm sama bàjjen soxna Baale ndax lépp moom la moo ñu téye suturaal ñu yiir ñu benn doomam ko ak ci biti soxna Baale dañ koy ñaanal mook bàjjen moom mi mu bëgg àgg yàlla na ko fa yàlla àggal ñu topp ci ginnaawam nag topp ci ginnaaw Baale parcelle. ak Balla Ndiaye suñu mag leen ñaanal ñu ànd liggéeyal suñu bàjjan ba fu ñu bëgg àgg ñu àgg fa xale yi waa daayira yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal ñu takku te laxasaayu ànd rek ci ginnaaw soxna Bally ba fu ñu bëgg a àgg ñu àgg fa ci barke Sëñ Touba jërëjëf. sant bu baax nag di gërëm bu baax soxna Ndeye Khoudia doom la ci soxna si ca kenn jiitu ko ci liggéey bi ñu rafet rafetlu am xelam ak xalaatam ak yitteem ak jëfam. waaye damay wax bokki daayira bi ni leen ñun ñoo war a sant ndax koo xamante ni si sëriñ sooy bu mu la jur mu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu jox la soxna may mu tër bi yàlla boppam ba napp ci yow nga ñëw jikko ya nga fa jële ak njureel gi la sëriñ son yi bu jur nga ñëw kër biir kër sëriñ mun taxam sëriñ Basiru soppil ñu kër gi nag yoral ñu ko ñun ñëpp kenn ku ci ne bëgg di ñun te bëgg yi kenn ba pare kenn ku ci ne cër bi mu am ci yow jox ko ko ba mët sëkk ñun ñoo war a sant kon lu ñu def doyut lu ñu góor góorgóorlu doyut ñun jub ak am jom ak nangoo liggéey ak bëgg a liggéeyal sa liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek moom war ndax moom lañ gis ci soxna si ni mu def Sëriñ taxaar rek noonu lañ ko war a def kon dama leen di sant yéen waa daayira bi te di leen soññ te di leen ñaax di xamal ni leen ni ko Serigne fi waxee léegi rek bu nu ko liggéeyalul woon it sax ñeneen danañ ko liggéeyal ndax liggéeyal Serigne tubaab bari ko ci mbartal la booba ma xëy bërigo bi dana dem booba booba ma waxul bërigo bi dana dem kon nañ ci teg suñu loxo dese sag bu mel ni ñoo liggéey ndax liggéeyal sëñ Tuubaa dana dolli ñett dana dolli wërsëg dana dolli gudd fan dana dolli xel mu dal te ñett yooyu la doomu dama soxla ci àdduna ci àdduna ak àllaaxira gisuma lu ci ëpp doole jàmm jàmm nag liggéeyal sëñ Tuubaa moo la ko mën a may rawatina nag ñu jaaree ko fii ñu ko jaaree nga xam ne du bunt du mbedd boulevard la ñu jaar ndax ku ne xam na ni soxna Bali ku ne ne bëgg na mel ni moom te bëggut a mel ni kenn lépp loo ko gën a bëgg lu Sëriñ Tuubaa mu bàyyee la ko loolu moom am naa ci lu ma leer nañ ñi ndax ba ma amee juróom-ñaari at ba nëgën si laa ko xamoon te sama juróom fukk lem tegal kon li ma leen di wax lu wér la damay njëkkante ak waxtu yu nag jox ki nga xamante ni si moo yore kàddu soxna Bali war a tontu daayira bi muy soxna Aja Jaal Mbay kon soxna jàll bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf Serigne Touba jërëjëf waaw Bas kàddu yi jóge ci soxna si tubaarkàlla kàddu yu yàgg jóge ci moom kilifaam gi toog di soxna moom yi di kilifaam di xaritam di ndeyam dafa wax ni soxna Bali nee na mu ngi sant yàlla ak yonent bi sër sallallahu alayhi wa sallam sant sëriñ Touba maamam ju baax ji sant sëriñ Mountakha mi muy liggéeyal sant baayam bu baax bi ko tànnaloon fii indi ko fi te toog naa léegi magam ju baax sëñ Abdou Khadre jur ko ma dib taawam ñëw fi léegi nuyoog moom sant ko gërëm ko ni ko dama noonu dama lay nuyu si rek siyaare la sant la waaw góor lii nga nekkee rek la fii la sa baay indi woon nga toog fii lépp dana la fekk ma fekke ko te loolu mooy dëgg soxna Baali nag wax na nee na moom de gone yi daayira bii nooru daayira yi nee na mi ngi leen di sant cant goo xam ne xam na fu mu tàmbalee waaye amul nag ab yamukaay nee na yéen daal waxul seen jëf jii waaye seen jëm yi ci la jëkkër si xam nga soxna Baali law la cat xamee na gaynde ak sayu mat ak mbëggeel aku mbañeel ñoo yem loo ci def nit mu xam ko yéen nooru dayri ne bii da ngeen a am pëstéef law la cat te nit ku ne ci sa pëstéef lañu lay fekk dimbali la soxna sëñ Muntaxa ma ko waxoon ma ni ma jaal ku ne ci sa pëstéef la lay fekk dimbali la soxna Baali ne yéen da ngeen a am pëstéef nee na pëstéef bi ngeen àndandoo takku ndax nit dana tàmbali sax mbir ni ko jéeyi ba ñëpp seen ko saytaane am ca wàll waaye yéen seen diggante bi law la cat saytaane am ci wàll ca du ko ci am ndax da a ànd bëgg lu baax pësteefu li ngeen di def ngeen xam ko fi ngeen teg seen tànk law la cab noonu rek la ndax nee na ku ci amul liggéey bu màggal gi dikkee bàyyi nga liggéey ba ak màggal gu mën a am ku ciy def dara bu màggal gi dikkee bàyyi nga loola fu ne ngeen dem lu ne ngeen di ko wax ci lu baax te lu ci nekk da koy dégg comme noppam di ko gis ak bëtam di leen xool ngeen laxasaayu nee na démb daleen di xool ba yàgg mu ne ñii de man de ñii xuma lu ma leen di fayee waaye ma balee nag Serigne Touba mi nga xam ne mooy fay nit ci liggéeyam ak pëstéefam mu fay leen nee na yéen seen jëf ji ngeen def fii ci ginnaaw lu ne ngeen jënd ko rangali ko indi nee na li ngeen def ci seen jëmm yi moo dàq li ngeen ko def moo ko dàqal dar kon ne dar man ko fu ngeen taxaw xam ne diwum soxna Baali maa ngi fu ngeen taxaw xam ne daayira nooru daayira yi ni soxna Bally baa ngi ànd ceeg moom fekk ko ci ak bëggam ndax moom nag ak bëggam mooy bëgg sëriñ tubaa bëgg sëriñ tubaa mënta weesu laaw la cat di xale bu ndaw jàng la nga war a jàng alxuraan ba mokkal jàng la nga war a jàng ci jigéen ba mokkal liggéeyu jigéen baayam bu baax ba nga xam ne sëriñ Bamba moo ko jur yëkkati ko taamu sëriñ Muntaxa mi nga xam ne ku ne bëgg na nag sëriñ Muntaxa di sa kilifa mu yëkkati ko jox ko ko laaw la cat yal na ko yàlla musal ci cat mu ñëw fi nag xam loola xam bëggug sëñ sooy bu ga mu laxa saayu laxa saayu muritu sëñ Muntaxa bëgg ko te kat diggam ak sëñ Muntaxa benn garaat rekk lañu bu jaan mat du ñu ne góoram du ñu ne jaan ju góor a mat du ñu ne jaan ju jigéen a mat dañu wax nañu ko lug rek mbaa mu dem barsàq ngeen bokk benn garaat seex son yi bu jur la sëñ ba Basiiru jur ko sëñ Bàmba di kenn sa baay bu baax ba nga xam ne laaw la cet li lépp tey moo ko waral jigéen ju baax ju nangu ak bi ju liggéey ba Sénégal gépp xam ko yàlla fayale ko muy soxna màgget Gaye nga ñëw ci kër gi kero ba nga fi ñëwee ak léegi sero fot sero fot kanam rek kanam rek ndax sëñ Tuubaa amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la waa mu ci laa ne ci cant gi laa ne mbàkke waaye cant gi loolu dangaa amuk cant cant ga nga am dama koy jiital ba noppi teg leen ci loolu yàlla moo la ko fayee ndax sa ndigalal bàyyi la nga dégg ak sa ndigalal day la toog ci kër gi law la cat ba am fi li nga fi am ba lii fekk la fi te day yokku dama koy wax ba noppi door ci teg ñii nga xam da leen a sant cant goo xam ne dama koy wax ba ñoom ñëpp ku ne sa yaram daw ndax ñoom nag nii ñu la bëgge ak nii ñu amee pëstéef ak nii ñu ko jëfee ak nii ñu ko defee dañoo xam luy yow dañoo xam luy yow ndax kenn rek moo dox sa digg ak sëñ kon liggéey bii ñu la liggéeyal ba sa xol sedd nga ne ma ñii de santal ma leen cant goo xam ni xam naa fu mu tàmbalee waaye xaw ma fu mu yem yuusu yàdd yàgg mbooloo mii nga jiital soxna Bally nee na mi ngi leen di sant cant goo xam ne du ci noppee di ko wax fii ba suba ndax yéen nag def ngeen loo xam ni nee na moom xam na lu mu doon ndax ak taalibe ci ngeen ñëw ci Pastef ngeen ñëw ci bëgg ko ngeen ñëw ndax nit dana am Pastef ca du ko mane nii dana am bëgg te du ko mane nii waaye yéen lu ngeen bëgg sëñ Tuubaa fekk leen ca de ndax seen Pastef a ko def soxna Baali ne mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di sant cant googu bëgg na fu ay dem yóbbaale ko bëgg na tele bi jël ko bëgg na rajo yi jël ko bëgg na nit ñi dégg ko bëgg na nga jàpp ko ci seen xol yéen waa nooru daayira ni muy góor muy jigéen nag ak ko mën a doon yuusu mii sërif njaay xaadim jeng addu boo limee juum ak ñi ngeen jiite waa nooru daayira ni gépp ak jigéen ndey joom mi ak ñamu boo ak ñëpp tubaarkàlla noonu waa nooru daayira ni daal soxna Bali nee na wóor na sëñ Bamba cant gii nee na ma loo ci bàyyi rek yaa ko ci bàyyi waaye bëgg naa ko santal ma leen cant gu wér cant gu wér sant na leen gërëm na leen mu ngi leen di ñaanal ci dara ji sëñ lu ci waay bëgg ci xolam na ko fas sëñ Bamba dina ko defal ndax matériel bi ngeen indi ku ne xam na lu muy jar waaye nee matériel bi li muy rafet ak li muy foor ak li ngeen def nee na seen jëmm yi li ngeen def seen jëmm yi laxasaa yi ak ànd gi ak li ngeen yenu nee na moo dàq lépp lii nag da ko cee dolli rek yal na leen sëñ Touba fay soxna Bali ne yéen waa Noori daa rey ni de. mbooloo dana ànd ba mat ay millions nit ca seen pësteef bi ñooña duñ ko am mbooloo dana mat fukk nit def pësteef boo xam ne ku ñëw da nga xam ne fii ku am pësteef a fi jaar ku yàlla nara a dimbalee fi jaar ku sëñ Touba nar a dimbalee fi jaar yéen nag sëriñ Touba danoo nar a dimbali yàlla na leen dimbali te ci ba suñu borom dimbaleen ci barkab sëñ Touba nee na mi ngi leen di gërëm daal di ko seere àddina jëpp mu ngi leen di sant di ko seere ci kanam ju baax ji di soxna moomi Mbàkke ak waa kër gépp comme ni nga ko waxee léegi ku sëñ Muntaxa am mu ngi la koy seere ndax ñëpp a bokk positif ci moom ñëpp a ko bëgg ñëpp a ànd ak moom wax nga léegi soxna yëm tubaarkàlla ak ku sëñ Muntaxa yor la ko tàmbalee ci soxna yëm ba ci soxna Bali Guèye mii soxna Njóoba Ñaan soxna maam Faati ture soxna maam Xëri Jóob ñoom ñëpp kenn ku ne Mbàkke dafa laxasaayu rek ne ci sa ginnaaw ca sa jikkoo la ko may man ne gisuma kenn ko lay xëyroo gisuma ko la ba xool bët ba mu la war a ba xool ndax sëñ Bamba moo la ko defal ndax yaa ko fi liggéey yaa fi ñëw laaw la cat mat la nga doon laaw la cat mel na nga war a mel doomi sëñ Muntaxa yëpp noonu seeni ndey mel ne la ñu mel ñoo laxasaayoo àndandoo bëgg la rawatina nag baali milan mi ci sama ginnaaw nga xam ne dañ ni tëf ni baali milan rek mu màgg rek nuru la nag am jom am pëstéef màggal gi séqu ko kenn day wax màggal gi sama màggal la mook baali yi mu àndal yëpp baali baali yii nag tubaarkàlla kenn gënu leen am jëm dayre bu matee ñeent fukki at tubaarkàlla li ko ko manqué tuut la ba ñu juddoo màgg di xale yu ndaw tuut tànk rek la ñu formel seen bàjjen dayre ànd ca ñii sëyi nañu ñii am nañuy doom waaye tubaarkàlla bu ñu yeewoo dañu gën a bëgg seen bàjjen dañu gën a bëgg am pëstéef dañu gën a góorgóorlu ca dana baax wax naa bëgg démb ni ko tubaarkàlla gone yi di nii ñu mel yal na yàlla lafal cat ndax yow nag mbàkke noonu lala yàlla binde dangaa ngaa baax te baax moom boo ko defee bu la ko nit ña waxaatuloo da ko xam bëkk dem damay toog ni leen baali baali yii de seen daayira bi Pastef bi ñu am fu seen doole yëggul waaye bëgg seen bàjjen rek ñoo ko def baali moo ca jes bëgg na moroomam ndax bëgg seen bàjjen tàmbalee ko ci baali njaay mii ba ci baali ma ca gën a ndaw law la cat baali yi sant mbàkke tubaarkàlla macha allah law la cat catu wu ma la ba ki dem dama leen di wàññi muy fanweeri baali te fàtte naa sax moom sëñ Abdourahmane sëñ Mountakha Balla ak Maramay Sa ak Sadio ci yar sant Mbàkke rekk di waxuma taalibe yi ci mu ci nekk ku ci ne mën na lim sa baay xam nga ne loolu nag sa jikko moo la ko may. sëñ ndax danañu juróom-ñaari turandoo rek ku ko am yow nag Balla ak Maramay Sa ak Sadio sa kër baay am nga ci fanweer maa ko wàññi barke borom Touba Mbàkke waxuma nag menn mu santul Mbàkke nag yi santul Mbàkke ñoo ëpp. yal na la fi yàlla bàyyi yal na la yàlla lafal cat yal na nga mucc ni suñel ma cëcciw rëkk ci barke sëñ Tuubaa yal na yàlla dolli sa taxawaay jàmbaar nga ndax nit nag lu mu def bu dee jàmbaar danga ko ko wax nag ndax bu naka ne fekkoon tey kër gi nga nekk fi yemale ku la gën a ba kon lii du am waaye barke sëñ Bamba saaboo yow ñu ngi lay gën a bëgg di gërëm nag soxna moom yéen a bokk ndey ak baay muy sa mag mu jàppale ci biir jàppale ci biti ca Mbàkke man ku la bëgg dama koy xam ku la bañ dama koy xam dem ma fi saalu kenn taxawaalu ma kenn nit ñi léeg-léeg nit gis ma ni ma waaw jaan bay réew moo neen ma ni fa soxna Bally rek namu ma dara ñi nga bokkal bàyyi ku ma gis damay teral ñi nga bokkal ndey ku ma gis damay teral sa taalube yi ku ma gis damay teral barki sëñ Tuubaa man de maa ngi ñaan nooru dayrina bii li nga leen di ñaanal ñu defal la ko ba sa xol sedd ba nga waxal leen lii balay say wet yàlla na sa xol sedd nga yàgg ak sëriñ Muntaxa bañ di ko weer ak a weer yi barki sëñ Tuubaa lu ci joom ngeen baal ma ñëpp laa gërëm ñëpp la rawatina baal yi baal yi mucc ne damaa bëgg ni ma bàjjanam bëgg barke sëñ Tuubaa Mbàkke taalibeem yii yuusu yàdd mii bëkk démb day ngénte lépp soxna baali rek fon taxaw mu ni yaay jàll lépp soxna baali rek lépp sa yow lay sa koo am da bëgg koo am rek ndax noonu naa woon nit ki nit lu mu la lu mu nit lu mu la gën a miin rek lu mu la gën a miin gën laa bëgg ndax am nga yar am nga jom yal na la yàlla musal ci barki sëñ Tuubaa ngeen baal ma wasalaam Basiru àggale ko ndax tàng naa fi mu ne daanu naa ba mënatuma àggale ah. jërëjëf soxna Diall loolu nga ni daanu nga dëgg la jaadu na ndax ku xam soxna Baali xam na man mi nga xam ne si sax doom laa ci moom bu ma génnee ñu bari dañ may teram soxna Diall yow loo wax ci soxna si ku la xam-xam sa xam ni dëgg la ndax tubaab bi sax dañ ko ni loo bokk ak Lat Joor te dama gindi dama gindi xàmmee rek gis leen yal na yàlla dëgëral taxawaay bi ci bàyyi leen fi ma ñëw nag ci Nourou Darayni ci cantu soxna moom si Ibrahima borom dër bi borom jën ak joor dafa wax ni lépp lu ngeen defal soxna Bally mel ni moo ngeen ko defal ndax bokk goo gis xarit am na ca waaye danoo bokk bëgg te bërki dem boo njaay yàggut dara saa fu nu jébbalee suñu fédération daayira Maam Jaara bi ngërëm li sëriñ Mountakha di gërëm soxna Bali soxna mooy mii la koy seddal kon moom bu leen santee gërëm leen ñaanal leen war ngeen a daloon xel te dool yaakaar ndax doomi sëriñ Tuubaa mooy waay juróom ba pare nag ndigali sëriñ Tuubaa yi ñu nekk ca mooy bëggante soppante jàppante kon soxna mooy mi nee na yi li ngeen gën a bëgg yéen a ko xam da leen di bàyyee ak Serigne Touba lu ngeen xalaat mbaa lu ngeen bëgg mbaa lu nekk seen xel rek rafet leen ci njort ci li ngeen dëgmal ndax ni ngeen def soxna Bally réy ci moom loolu ndax ni ma ko waxee léegi jëlale naa doon gim doon rakkam waaye day xaritam bokk ak moom lépp ñu yëkkatee ndoo di tëralandoo nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal liggéey bii ñu tàmbali. yàlla na kawe sunu njot ñun ñëpp te ñun fekk li te mu fekk lépp bu loo loolu jàllee nag ci jant yi soxna Bali sant ci di leen sant nee na du noppi ci di leen sant jotale na ni ko jàll waxe lépp waaye nee na li mu leen di gën a sant day dafay ñaan ngeen sax ci mooy lan jub gi mu xam ci yéen ndax bu àndoon ak yéen ngeen di ko indil àddina ak li ci biram ca taxawu leen ko njub ak ko ragal yàlla da koy indil ay jafe-jafe waaye nag li mu leen gën a sante mooy jub gi ndax déggagu leen ci lu mu leen wërta dégg nee na àndandoo gi ngeen àndandoo di dimbalante ci seen biir di yëkkatandoo di tëralandoo loolu da ciy sant yàlla bu baax di ci sant Serigne Touba maamam di leen ci sant bu baax ndax ci njabootam rek ngeen nekk. lu mu métti métti métti ak njabootam ngeen lu mu neex neex neex ak njabootam ngeen mu ngi leen di sant ci di leen gërëm ci taxawaay bi ak yitte ji ak pëstéef bi ak bokk xalaat beeg gis-gis bi nee na nag du lim waaye mboolem li ko tàmbalee ci yuusu yàdd ba ci ki ci mujj bindu ci daayira bi ñi da bokk yitte bokk pas-pas bokk fu ngeen jëm moo tax ngeen mën a ànd nee na ànd bi yàlla bu ci seytaane am wàll nee na ngi leen di sant te di leen gërëm ci lu ngeen gën a góorgóorlu ci njub ak tegu ci yoonu siraatal mustaqim bi mu xam ci yéen loolu rek bu ngeen ci wan mu doy sëkk waxuma na ngeen boole ci bokk xalaat bu rëy bu rafet bii bokk yéene bokk bëgg bokk fu ngeen jëm bokk dëgmal yàlla na leen Serigne Touba gàttandul boppam ca wammatal leen boppam nee na lu ñuy ragal yàlla bu nu ko gis mi ngi leen di sant te di leen gërëm muy góor muy jigéen di mag di ndaw ak ku am yéenee bokk si ci daayira bi nee na bokk nga ci biir am koo xam ne jëwriñ la ci biir kër gi ca loolu daf ko donn ci way waajuram muy sëriñ Muntaxa Gay moom sëriñ Abdou Samad baayam gaynde la ci yoon wi ndax at mu jot bu joxeem tabaski doom la cay boole ak buum ci baatam jox sëñ Moustapha Bassirou bi mu ñëwee mu xam loolu foofu la teg tànkam rek def ko sëñ Muntaxa def ko soxna Bali muy koo xamante ni si ci ndigal rekk moo koy bëggal ci ndax da ciy juddu yaru ci ñu màgg ko ñu yar ko ci ba pare nag jébbal ko soxna Bali muy soxna Bali ndax dañoo jàppale ci dayre bu baax muy buñ demee Ndakaaru bari na ci loo xamante ni si wax dëgg yàlla gannaaw yàlla ak yont bi jëmmam ji moo tax ñu mën ko lii ñu mën koo def muy mun tax a gay samat moo xam la mu gën a bëgg muy ngërëmal sëñ Tuubaa yàlla na ko bari la yàlla na bu ko kenn ëppale ñoo ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ko wér suñ borom musal ko ci cat ca bàyyee ko soxna Bali ci lépp lu nar a dox digganteem ak soxna Bali suñ borom faxas ndax dalal na sunum xel dolli na suñu yaakaar doon na gone waaye naw nañ ko ndax li mu judd doon ko ñu yar ko ci nampatal ko ci moom la gis ci moom muy ak taalibe ak pëstéef yàlla na ko fi suñ borom bàyyi guddalu fanam wérali cëram kon ñun ñëpp nañu àndandoo tàllal ca kenn ku nekk li nga gën a bëgg nga fas ko soxna si ñaanal ñu ñu waajal màggal gi nag. amiin amiin amiin da nga ñaanal ñu jékku ndigal nag Mbàkke mooy wér ak yor amiin amiin amiin amiin amiin